ki yàlla yónni woon ci ñun tamit am na lu mu ci wax kon loola waroon naa mën a doy moos ci kaw ñu mën ca jëfandiku ba wax jooju bañ doon loolu tubaab di wax polémique werante muy shafaa mooy ràmm baatu ràmm boobu nga xam ne léeg-léeg nit danañ ko faral di jëfandikoo te ràmm moos dees na ko def nit fii ci àddina waaye bu ñu koy wax dëgg dëgg dëgg bés penc ma moo tax ñuy wax nga xam ni baatu ramu ramm alquran wax na ci ci suuratul baqara foo xam ni fii dafa mel na soo ko indee aaya ba te dégge ko ci yax bi mel na na dañuy daq ramm ak nu mu mën a demee yawma laa bay'un wala xullatun wala shafaa mooy bés boobu nga xam ni amul lu waay mën a jote boppam amul xaritoo amul tamit ak ramm goo xam ne gii nit mën na koo jëriñ moroom ma waaye am na yeneen aaya yoo xam ni wane na ni ndaxam rammu dana am te loola nun du suñuy wax du waxi ki yàlla yónni woon ci ñun sax suñu borom tabaraka wa taala moo ko wax ndax boo demee ca alquran ba tey maa salakakum fii saqar qaalu lam naku min almusallin wa lam naku nutimul miskin wa kunna naxuudu maa alqaaidin wa kunna nukadibu bi yawmi din xata atena alyaqin fa ma tanfaauhum shafaatu shaafiin loolu itam lu leer naññ la ci ne yàlla moom am na ñu mu jàpp ne ñooña daañu ràmm ala kulli xaal ki nga xam ne moom la yàlla yónni ci ñun bi nga xamee ni aaya bi ñuy wax te nekk ci suratu shuara suñu borom di ko wax naan ko wa anzir achirataka al aqrabin nee na booba dafa dal di rët achira nag ci baatu arab mooy ñi nga xam ne dañoo bokk ak yow ci jege ñaale ba ci juróom ñeenteeli daraja maanaam tey nga ne sa ay mbokk rakk mag doom euh, baay euh, maam ba ci maamaat mu ne ñooña na nga leen xupp na nga leen yee na nga leen jàjj loolu la alquran wax ba mu ko defee day rasulullahi sallallahu alayhi wa dafa dajale ay mbokkam mu ne yaa maachara quraysh am na sax ñu ne am na ci beneen baat aw kalimatan nahwaha am na daal baat bu mu leen tudde yéen mbooloo mi ishtaru anfusakum an ishtaru anfusakum laa ugni ankum min allahi shay'an mu ne e jënd leen seen bopp wala boog jot leen seen bopp fii balaa daraa wees ndax man kat mënalu ma leen fa yàlla dara daal di tàmbali di di lim yaa yaa bani abdal manaaf daal di wëlbatiku daal ne yaa abbas ibnu abdul mutalib yaa safiya ammatu nabi sallallahu alayhi wa sallam yaa fatima bintu nabi sallallahu alayhi wa sallam bintu muhammad dafa ne ko salini min ma shi'ti min mali yow ma yow sama doom fatima laaj ma lu la neex ci sama alal lu la neex ci sama alal waaye nag laa ughni minki min allahi shay'an dégg nga kon wax boobu euh, euh, euh, laa ughni anka min allahi shay'an Euh, mu mënalu ma la fa yàlla dara loolu ki nga xam ni kii moom la yàlla yónni woon ci ñun moo ko wax xadis boobu euh, Buxaari mi ngi koy soloo ca deux cent six muslim ma ngi koy soloo ca mille sept cent cinquante nga xam ni alquran wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko ne qul qul waxal ni laa am ku lakum darran wala rachada man day mënuma leen a wàññi tus waaye nag mënuma leen a jëriñ tus mu fa waxaat feneen nekkul qul lu inni lan yudirani min allahi ahadun wala najida min dunihi multahada man amul kenn ku mën ci sama digganteeg yàlla dara tus amul kenn ku ma mënal fa yàlla bu yàlla nammee ci man la ko la amul it kenn ku ma yaakaar sama digganteeg suñu boroom koo xam ni kii daf may dimbalee lenn lu dul lu jóge ci suñu boroom jëf yi day fawuñu fay leen te loolu mooy li wér yàlla wax na ne i'malu fa sayaara llaahu amalakum summa turadduuna ilaa aalimi alxaybi wa shahaadati wa yunabbiukum bima kuntum taamaluun mu waxte feneen nag ne fa iza jaati taamatul kubre yowma yatazakkaru linsaanu ma sae wa burrizat aljahimu liman yare fa amma man taxe wa athara alxayaata dunia fa inna aljahima hiya almawe wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an ilhawe fa inna aljannata hiya almawe loola daal mooy kenn ku ne say jëf moom lañ lay togg te moom lañ lay laaj ëllëg man day xam naa ne ñàkkul maa ko gisul waaye gisu man ci biir alquran walla ci wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lenn lu tekki ni nit yàlla dana ko fay lu weesu jëfam man gisuguma ko fenn ku ko gisit nag ma ci dimbali bu ko defee nag mbokk yi ñu xam ni yàlla ku rëy pexe la amul kenn ku ko mën a jaar sàkk xaadimu rasul ma ngay bind ci mawaahibul quddus naan tallaahi laysa yanfaw shaxsa gada inda xululi ramsihi xayrul huda tabban liman shaxalatu dunyaahu bi jamiil xuttaami an uxraahu wa in gada muridu dahran yatbacu li roxsati sharci fala yantafiu mu ne waat ne bés bu ñu jël ab jëmmi doomu aadama di ko dugal ci biir paxam nee na foofa la ko mën a jëriñati mooy ji jub gu mu juboon ci kaw suuf jëfam yu baax rekk ñoo ko fa mën a amalati njëriñ mu ne kon toskare ñeel na ki nga xam ne àddina da koo fàbbi woon ak i ak poñetam ba mu fàtte àllaaxira nekk ci boppam mu ne te nag kiy wut yàlla muy murit bi kon kooku képp kuy wut yàlla bés boo xëyee suba di seet lu sharia yombal ci say mbir mu ne doo jëriñu mu waxee ne beneen tamit ni rajaa u taatin mooy ma bañ ma gàttal ko nee na yaakaar aj aj eh, yaakaar ajjana rajaa u jannatin bila taatin yaakaar ajjana ci bu ci bu àndul ak jaamu yàlla nee na loolu ay waru képp la du leneen da ngay dégg nag fii ci suñu réew mi nit ñi kenn ku ci nekk bëgg a jël mbir mi def ko lu yomba yomba yomba yomba yomb bala ngay am lu la metti ñu naan toppal li nga topp te bàyyi jàmbur nekkal ci li nga nekk te mandu pour lan mandu di am déedéet mandu du am ndax da ngay dégg ñu ku ne def li la doy te mandu déedéet fii lislaam moo fi doy leneen doyul lislaam képp moo fi doy leneen doyul su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dikkoon nag ak ñett ñeenti juróom juróom benn fukki version su boobaa dañ naan nañ seet kenn ku ci ne la la doy nga def ko ku ci ne la la doy nga def ko waaye benn la indi indiwul ñaar bu wuute di am néew na bari na mi ngi am ci mazahib yi te mazahib yooyu seeni wuute fa lillahi alhamdu wa shukru bariwut amul solo nga am sañ-sañu nag seet mazhab bala la doy nga nekk ca loola su boobaa kenn du la tudd kenn du la taas waaye nag lu génn mazhab yooyu nit ki di ko génnee ci gémmiñam wala mu koy jëf wala mu koy dundee kenn du ko ko daganalal kenn du ko ko nangul loolu mënta nekk képp koo xam ne kii indi nga loo xam ne nee nga sa tànneefu bopp la wala sa xalaatu bopp la wala boog yow yaa ko gisee noonu wëlla nga indi ab parparloo loolu dañ la koy delloo kenn du ko jël kenn du ko jël maanaam li ma bëgg a wax foofu mooy ak koo mën a doon ak noo mën a toll lala doy bu doyloowul ci kaw alquran ak sunna doyut képp koo xam ne kii taxaw nga am ne lii moo ma doy loola su fekkee ne doyul yàlla doyul yonent bi doyul bu ko defee nag ñu xam ni lislaam rekk a doy waxi yàlla rekk a doy waxi ki mu yónni woon ci ñun rekk a doy leneen lu ko génn ak lu mu mën a doon loola doyul bu ko defee nag mbokk yi ñu gën a farlu ci suñu taxawaay jël buur bi nga xam ne moo ñu bind te bindeew ñu lu dul ñu jaamu ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuni ñu jox ko cëram jox ko palaasam jox ko gëddaam suñu kéemtalaay kàttan donte nag mënuñu koo teg fa mu toll ki mu yónni woon ci ñun it ñu jox ko bërëb ba mu wari ba bay ba yell ci jëmmam ñi nga xam ni nag ñoom ñoo topp seeni kerkeraan ñun ñu jaar ci seeni tànk ñun ñoo it ñu wormaal leen jox leen cër bu mat sëkk ndax nag ñoom bu dul woon ak ñoom seen fàkk googu ñu doon fàkk yoon mën naa am ñun tey duñu fi fekk lu ñuul ba di ca jaar loolu moom mbak mbokk yi moom lañuy ñuy dolli ci waxtaan wi bala ñuy daaneel it nag ñu dalal xelu xarit yeeg am di jàmm mbokk yeek jege ñaale yi ci wax yi nga xam ne mi ngi jib ñuy am ñu ñuy woo naan ñu li diw wax li diw wax li diw wax li may dalale seen xel mooy su fekkoon ne yàlla def ma dimbali ku toll na Cheikh Abdou Abdou Aziz Touré wala ku toll na Cheikh Amadou Rafahi wala Ibrahima Khalil Ngaabu wala Cheikh Ahmad Lo wala boroom xam-xam yi ci réew mi yal na suñu borom guddal seen fante te barkeel leen ñooñu de bu fekkoon ne dañuy wax may am xiwaar ak ñoom yàlla dimbali ma ma am daraja ju toll na ñuy wax may tontu ñuy may ñu may wax ñuy tontu su boobaa man damay jàpp ne yëkkatiku laa am ca xiwaar booba waaye ñoo xam ne ñii la yàlla xam doy na. la yàlla xam doy na foofu laa yem ci wax ji ñooñu nag dama leen di indil benn aaya alquran bu suñu borom tontu loon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ca ba ko walid ibnul muxayra toppee mbooroo mu ne ko walaa tuti kulla xalaafin mahin hammazin mashaaim bi namim mannaain lil xayri muctadin nasim utulin ba'da zalika azanim an kaana za maalin wa banin ida tutli alayhi ayatuna qaala asaatiru lawalin sa nasimuhu ala alxurtum kooka ak ñooña ñëpp dama leen di tontoo aaye boobu te yem fa am na ñoo xam ne ñii daal duma leen tooñ yéen ñii di samay soppe di samay xarit di amay am di jàmm sopp samay wax di leen tooñ bay wàccee sama daraja di tontu ñenn ña ñeema leen wax daal ñoom su ma yàlla mayoon tuuti barke yàlla may ma tuuti daraja ba ma mën di wax ñu may tontu ñooñu may wax ñu ñuy tontu ñooñu moom dama cay bég te yëkkatiku ca am na ñoo xam ne ñoom foofa rek laa leen féetale asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.